bonsoir amis et très chers internautes yu Dakar Net ginnaaw bi ngeen nuyoo di leen présenter votre toute nouvelle émission Jigéen Jongeel Jigéen Jongeel nag di émission bi leen di dikkal lépp lu aajo ci néegu sëy moo xam góor wala jigéen ci ay fem ay astuces ak ay truc ngir ñoŋal seen néegu sëy yemu ci loolu tamit ngir fexe ba seen néegu sëy yi nekk des paradis sur terre waaye nag duma ci wet benn yoon dama ci ànd ak ay invité de marque ñu ci waxtaane lépp lu aajo ci jonge ak ay truc ak ay astuce dama leen di jox nag rendez-vous bientôt lay doon fii ci biir kër gi ndax nag damay faral di wax ni jigéen balaa am manoore faw day ngàndaayoo lii di jonge moo ko pooj ak fexe ba jël borom këram teg ko ci diggu loxoom bientôt lay doon ci biir kër gi